jëf ya saar ak juróom ñeent bi pool ak barnabaas nekkee ikoniyom nag ñu dugg ci jàngub yawut ya ni ñu ko daan defe ñuy waare ba mbooloom yawut ak grek mu bari gëm waaye yawut yi nanguwul yi ñoo jógloo ñi dul yawut di ñaawal seen njort ci mbokki taalibe yi pool ak barnabaas nag sax nañu ci ikoniyom lu yàgg ñu wéeru ci borom bi bay wax ak fit wu dëgër te yàlla dëggal kàddu gi giiwam ba may leen ñu def ay kemaan ak ay firnde noonu waa dëkk bi xàjjali ko ñii far ak yawut yi ñële far ak ndaw ya waaye ñu dul yawut ak yawut yi ñoom ak seeni kilifa lal pexem fit fitnaal leen ci sànni ay doj bi ko pool ak barnabaas yégee nag ñu daw ca diiwaanu likawni ca dëkk ya ñuy wax litsaar ak derb ak euh, wallaaya foofa ñu di fa xamle xabaar bu baax bi amoon na ca listaar nag nit ku fa toog ku ay tànkam làggi ndax li mu judduwaale la fañ te musula dox moom nag muy déglu pool mi noonu pool xool ko jàkk gis ne am na ngëm ngir wér mu ne ko ak baat bu dëgër jógal taxaw bu jub noonu nit ki ne bëreet jóg daldi dox bi mbooloo mi gisee li Pool def ñu daldi yuuxu ne ci làkku waa Likaw ni yàlla yi soppeeku nañu nit wàcc ci nun noonu ñu tuddee Barnabaas Soos te tuddee Pool Hermes ndaxte mooy ki yor wax ji fekk ca buntu dëkk ba amoon na fa kër gu ñuy màggale soos saraxalekat ba nag ànd ak mbooloo ma daldi indi ca bunt ya ay yëkk ak ay caq yi ñu defare tóortóor ngir màggal leen ci tuur deretu mala waaye bi ko ndaw yi ak barnabaas ak sowal déggee ñu sib ko ba xotti seeni yére ñu daldi daw tàbbi ca mbooloo ma di wax ci kaw ne yéen nit ñi ñu leen xiir ci lii nu nit ay nit lañu ñu bokk bind ak yéen te ñu ngi leen di xamal xabaar bu baax ne leen ngeen dëddu yëfi neen yii te waññeeku ci yàlla miy dund te sàkk asamaan suuf géej ak li ñu ëmb lépp démb mayoon na xeet yépp ñu aw seen yoonu bopp moona noppiwula firndeel aw meloom ci def lu baax di leen wàcceele ci asamaan taw buy indi naataange ba ngeen lekk ba suur te seen xool fees ak mbég noonu ci lu jafe yey nañu mbooloo ma ak wax jooju ba tere leen ñu rendi leen sarax waaye bi loolu wéyee amoon na ay yawut yu jóge antiyos ak ikoniyom ñu fàbbi mbooloo ma sànni pool ay doj ba yaakaar ni dee na ñu diri ko ba ca ginnaaw dëkk ba waaye taalibe yi ñëw wër ko mu daldi jóg duggaat ca dëkk ba ca suba sa nag mu ànd ak barnabaas dem derb bi ñu fa àggee nag ñu xamle fa xabaar bu baax bi ba sàkk fa ay taalibe yu bari ginnaaw loolu ñu dellusi listaar ikoniyom ak antiyos di dooleel xeli taalibe ya xiir leen ñu sax ci yoon wi ñu ne leen ci kaw natt yu bari lañu war a dugge ci nguuru yàlla ci mbooloom ñi gëm mu nekk nag ñu tànn ci ay njiit ba noppi ñu ñaan yàlla ak di woor dénk leen boroom bi ñu gëm ginnaaw loolu ñu jaar diiwaanu pisidi dikk ci pamfili ñu yégle kàddu gi ci dëkku pers doora dem dëkku atali foofa nag ñu dugg gaal jëm antiyos fa ñu leen dénke woon ci yiwu yàlla ngir liggéey bi ñu àggale bi ñu agsee ñu woo mbooloom ñi gëm nettali leen fi ñu jaar ak yàlla fépp ak ni mu ubbee buntu ngëm ci ñu dul yawut noonu ñu toog ak taalibe ya diir bu yàgg